mooy julli waaw kon su ñu nee kii jullit la dañuy jàpp ne kon moom day julli su ko defee julli boobu nga xam ne moom la ñuy waxtaane si ponk islaam yi su ñu nee juróom la julli boobu moom mooy ñaareel ponk bi ci ponk lislaam yi nga xam ne moom mooy farat yi nga xam ne moom la Yàlla subhaanahu wa taala digal jullit yi julli mooy jaam mooy jaamu yàlla joo xam ne moom lañ ëpp lu ñuy def maanaam jullit su xoolee lu muy def ci wàllu pratique maanaam wàllu jëf ci lislaam nga xam ne yàlla moo ko farataay ci moom julli rek mooy noo xam ne moo ci sax nga xam ne du ko wàcc waaw mais yeneen farata yu bari soo xoolee yàlla ay àpp leen wutal rek lu mel ne weeru koor bi nga xam si ñu nekk nga xam ne tey su jeexee su la neexee déwén ngay wooraat adi maak bi nga xam moom la ñuy jib si même chose azakatu kazalik kon julli rek mooy loo xam ne yàlla daf ñu koy digal ñu koy def quotidiennement maanaam bés bu nekk julli boobu tamit pour wane doyo bu mu am jàng nañ nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki at ak ñett yëpp yi nga xam ne wax yi bi day wàcc nga xam ne yàlla subhanahu wa taala su namee benn mbir jibril la ngay jox rek jibril ñëw daal di koy gaaral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante bu mu namee wàccee julli nee nañ yonent bi si boppam yàlla dafa digale ñu indi ko ko maanaam mu jox ko main à main kon loolu tamit day wane importance bi nga xam ne julli am na ko si tënk tamit ci benn xaalis boo xam ne yéen bi saasaam wax nañ ko ñu ñëpp di ngay dégg mais yàlla su nekkee day atte jaam yi lu muy njëkk a xool mooy julli kon yi ma wax yépp dafay daal di jaamu jullit bu nekk ngay defaat li ñuy wax muraaja maanaam révision donte ñi ngay def bés bu nekk donte ñi ngi dëkk ñoo xam ne ñu koy def bés bu nekk ñu teg seen bët ñu ñu koy def dafay laaj ñuy delluwaat ci mbir boobu di ko jàngaat di ko xamaat waaw di ko xamaat ay borom xam-xam yu bari lu mel Imam Malik dund nañ ba pare mais jàpp nañ ne julliwuñu correctement waaw li ñoo xaw a jéem rek loolu la ñëw tijjee su ko defee lu ci des ñu koy bàyyi suñu oustaz mu daal di ñëw ñun ci thème bi nga xam ne moom lañ choisir di ñaan yàlla yàlla tëj ci làmmiñam amiin amiin amiin yàlla dëgëral ko amiin ba lépp loo xam ne dina ko ci wax ñun ñu mën ko jëriñoo ak moom amiin yaa rabbal aalamiin ñaan yàlla tamit ñun ñi nga xam ne ñu ñuy déglu liñ fiy déglu mu nekk loo xam ne daf ñuy jëriñ ñu ñaan yàlla tamit jeetaay bi yàlla boole ko jeetaay bi kon moom la yàlla subhanahu wa taala gërëm kon fas daal mosoo yaa Cheikh
waaw xajal tuuti waaw tuuti waaw mën nga ko ci tuuti
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغم عن هذه الأمة وت وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla doole xéewal te busal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ziara di leen baalu àq ci weer wu màgg wi nu nekk ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala luñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yal nañ ko yàlla nangul lépp luñ ci tarxiis yal nañu suñu borom subhanahu wa taala jéggal di del siwaat tey ci barab bi di ànd ak yéen ci fàttalante mbiru julli ci koor lañ nekk waaye julli mooy jaamu yàlla bi gën a màgg ci jaamu yi suñ ko doon misaal ñu jël jëmmu doomu aadama léeg-léeg nga gis ci mbindeef yi kuy dox te amuli tànk lu mën a nekk la léeg-léeg nga gis ku dox amuli loxo lu mun a nekk la léeg-léeg nga gis ku dox amul bët léeg-léeg nga gis ku dox mënta wax léeg-léeg nga gis ku dox du dégg waaye mbokk yi kenn mësta gis ku dox te amul bopp kuy dox sans bopp mës ngeen ko gis seen si seen dëkk bi kenn du ko gis fenn loolu mooy julli ci lislaam mooy nit ki noo mun a mel maadaama jullit nga julli dafa war ci yow julli ci lislaam mooy farata bi nga xam ne du la wàcc même boo nekkee ci lalu dee julli wàccu la même boo nekkee ci lalu dee dara du la jar lu dul julli rek ak ni nga ko mënee nag julli kañ la lay wàcc mooy keroog bi malakal mawti roccee sa ruu ñu ñëw xool fekkatuñ fa dara keroog la la julli wàcc beneen bi mooy julli ci màggaayam ak darajaam ak réyam ak martaba bi julli am bi ko yàlla subhanahu wa taala di jox yonent yàlla muhammad daf ko woo ba kaw asamaan yeneen jaamu yàlla yëpp ci suuf la fekk si yonent bi lan moo tax julli kese nekk jaamu yàlla goo xam ne kenn doyul yàlla pour mu yónni ko mu indil ko yonent bi kenn kenn jibril li muy màgg-màgg keroog bi yàlla di jox yonent bi julli jibril fekkewu ko borom bi subhanahu wa taala daf ko préparé yóbbu ko ba malaul aala ci pays yu sell ya borom bi recevoir muhammad sallallahu alayhi wa sallam teral ko màggal ko jox ko julli ne ko yaag sa xeet lii mooy kaddu bi ma leen jox beneen mbir bu ñu mun a xamee ne julli ci jaami yàlla yi gën a màgg la moom la ñuy njëkk a xool yowmal qiyam bu nit ne cëpp yowmal qiyam li ñuy njëkk a xool ci jaamu yàllam mooy julli inna awal maa yuxaasabu bihi l abdu yowma alqiyama min amali assolaa yenent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam pour mu ñuy bàyyi loo xel julli mu ne nit bu nekkee ci bàmmeelam ba yowmal qiyaam jot lu ñuy njëkk a xool ci ay jëfam yi mu doon yëngatu ci àdduna mooy julli bu julli gi baaxee lépp baax na su julli gi bonee lépp bon léegi nag mbokk yi mbir moo xam ne nii la toll nii la màggee nii la rëyee nii la amee daraja mbir moomu war nañ koo xam wala waruñ koo xam mbir moomu jar na jàng wala jarta jàng mbir moomu jar na yittewoo wala jarta yittewoo mbir moomu jar na toppatoo wala jarta toppatoo ku càmbar jullit yi tey ndeysaan xam ne lépp lañ perte suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ci Qur'an inna salaa inna salata tanha anil fahshai wal munkar julli day mooy jaamu yàlla bi nga xam ne day tere nit def lu bon julli mooy jaamu yàlla bi yàlla ne kenn du ko def ba pare ñu gis la ci lu bon léegi lu tax ñun ñu koy def ba pare nekk ci lu bon seen ga Sénégal nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ du loolu lañ wax ñu ne téeméeri nit yoo jël juróom-ñeent fukki yi ak juróom ay jullit lañ te lu bon ne fi fànn sax fi ay reen samp fi ay tànkam dëgër këcc kenn mënu ko fi jël te ñuy julli guddeeg bëccëg te yàlla ne kuy julli kenn du la gis ci lu bon kon julli wunu lu tax julli wunu nag loolu lañ bëgg a wax mooy julli mbokk yi mbir mu rëy ci yàlla la dafa màgg moo tax boo nekkee ci sukuraat sax wàccu la diine joo dem amul yonent bu yàlla mës a yónni ci kaw suuf lu dul da doon julli ma ne amul yonent bu mës a ñëw ci kaw suuf lu dul da doon julli lii suñu problème tey nag mooy dañu jàpp julli def ay mouvement fekk li taxoon julli jóg duñu fa yegg mouvement yi rek la ñuy def mouvement yi jàpp julli mujarradu aqwaal yaluukuha lisaan bu dee booy kàbbar kàbbar bi ci làmmiñ bi la yem eggul ci xol bi booy jàng njàng mi ci làmmiñ bi la yem yeggul ci xol bi ngay rukkoo mu yem ci cër yi kese ci làmmiñ bi ngay sujjóot mu yem ci cër yi kese ci làmmiñ bi benn eggu ci ci xol bi loolu moo tax téere bi gën a ndaw ci Sénégal ñu koy jàng képp ku pare jàng alquran bëgg a jàng diine moom la la boroom xam-xam yi di njëkk a tëralal muy laxdari téere boobu même téere boobu sax ni mu jàngalee julli duñ jullee noonu téere bi bi muy jàngale ba yegg ci julli lan la wax للصلاة نور عظيم tushriqu fi qulubi almusallin mu ne wala yanaaluhu illa alxaashiun nee na julli dafa am leer nuurun azim moo tax foo gis kii julli te yemul ci làmmiñ bi soo ko xoolee da ngay xam ne kii jullikat la kenn du ko laam-laame kenn du ko làcce kenn du ko sikki sàkk foo ne tëll ñu xam ne kii day julli nuurun azim yàlla moo koy def ci yow saabu du ko indi njàmpe du ko indi ndox du ko indi diw du ko indi kan moo koy def ci yow allah nuurun azim leer bu rëy bu màgg buy jaljali ci sa ci sa ci sa yaram mu ne kenn du am leer boobu ci julli lu dul kuy toroxlu ci julleem kuy toroxlu léeg-léeg ma wax xale yi may jàngal ndax di ngeen seetaan président de la république buy wàcc ci avion di dugg ci réew mi wala muy bàyyeekoo ci réew mi di dugg ci avion di dem ñu ne waaw waaw dinañ ko seetaan kay ma ni bu ngeen koy xool ñan ñooy raa ci kanamam ñan ñooy raa ci kanamam est-ce que mun naa ci am fi ay tontu ñan ñooy raa ci kanamu président buy tàggatoo wala muy ñëw ay gars yu ñuy tuddee ay soldats dañuy raa ñoom ñëpp mbokk yi ñooñu raa ci kanamu président dañuy sol ay mbaxana mbax na yi day tolloo dàll yi day tolloo mbagg yi day tolloo ran yi day tolloo yépp ay fat ndax mas ngeen gis ay soldat yu ran ci kanamu président am am ku ci débordé ku ko mës a gis fii yëkkati sa loxo dañuy mel ne dafa am benn waay bu jël mètre wala mu jël fil à plomb def benn tere bu jub ñu ne yéen ñëpp taxaw leen nii ñoom ñëpp teg mbagg yeeg léppay tolloo ñooñu ci kanamu kan lañ taxaw kanamu mbindeef kanamu nit kanamu doomu aadama ñu jub noonu ñun boo demee léegi ci jàkka ñi ci kanamu yàlla la ñuy taxaw ku nekk taxawee lu la neex ku nekk taxawee lu la neex léeg sax nga ni benn waay mu mu- mu fas kanam yenn saa yi nga ni mu mu ciipatu ruko yi du ànd sujjoot yi du ànd njàng mi neexul sellul demal ci ñee nga seet nuñ koy defee lépp a normal te ci kanamu doomu aadama lañ nekk ndeysaan yonent bi bu julli jotoon balaa muy kàbbar day defar sàppe yi mu ne sahaaba yi saffu kama yasaful malaika sàppe leen ni malaaka yi di sàppee kanamu yàlla allahu akbar sahaaba yi ne ko naka mu ne yutimmu na safful awal na sàppe premier mat ba pare ñun léeg-léeg nga gis ku sàppe premier des ay place nga gis benn waay fële fële ca ginnaaw moom kenn cundum mbokk yi julli du ay waxu kese yi ñuy wax ci làmmiñ wala yu cër yi di def rek ni ay geste ruko sigi sujood wax mu jeex déedéet julli passé na foofu ëpp na ko julli dafa am lu muy symbole dafa am lu muy wone dafa am loo xam ne ki koy def dafa am lim koy jàngal dafa am lum ciy jële julli nekkul benn mbir boo xam dañ koy def ay mouvement bila tadabbur yaay Aïcha nee na yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu nekkoon ak ñun di waxtaan di kaf muy wax yenn saa yu ñuy ree wala mu ñuy jàngal ba julli jot yonent bi day mel ne xamatunu ba julli jotee day mel ne xamatunu ci wàccaay li allahu akbar day mel ne xamatunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir julli borom xam-xam yi nee nañ dañuy dégg dënn bi azizun ka azizil mirjal min al buka dënn bi day xiixat mel ni cin buy bax mel ni cin buy bax ndax jooy lu tax du dara de dafa xam ki mu taxaw ci kanamam kan la xoolal policier bu taxaw ci kanamu commissaire xoolal soldat bu taxaw ci kanamu général xoolal ndongo lu taxaw ci kanamu taalibe xoolal ay ministre yu taxaw ci kanamu président xoolal ñoo ñëpp ni ñuy màggale ki ñu taxaw ci kanamam xoolal ñun ñu ngi ci kanamu yàlla mais léeg-léeg nga gis benn waaye ne jadd jaddaaral nga xam ne kii xamul xamul li muy def dafa ñëw nii rek def ci mbir mi pour mouvement loolu tax seen saa yi nga dégg ku ne nañ ko dóor mu daanu gars yi nañ ko dóor mu daanu julli nañ ko dóor mu daanu yàlla mu ne wax aqim aqim la wax aqim baat yëpp aqim la yàlla wax aqimis sola taxawal leen julli du julli dañ koy taxawal mbokk yi julli dafa laaj teewlu teewlu goo xam ne ki koy def min aqlin wa fahmin day ànd ak xelam ànd ak compréhension boo xam ne bi mu koy def xam na li muy def lii lan la ba muy naan allahu akbar ba ba mu naan asalaamualeykum xool leen julli mooy jaamu yàlla boo xam ne boo jógee di ko def foog nga préparé ci sa yaram ci place bi ngay jullee nga dog koo attaqué borom xam-xam yi ñu ne li war ci yow balaa ngay julli mooy ñetti place na set sa yaram na set sa yére na set place bi ngay jullee na set moo tax yenn saa yi ci julli juma su ma séenee mécanicien yeeg menuisier yeeg balekatu mbedd yeeg ku nekk ak sa tëni nga ne allahu akbar ma ne cey ndeysaan ay waay ci biir jàkk kan moo mës a gis mécanicien bu président woo mu dem yóbbu tëni yëkkati sa loxo góor ak jigéen yéen ñi toog fi yëpp laa wax ku mës a gis président de la république woo benn waay ci réew mi ñu ne ko da ngay dajeeg président muy dem yóbbu tëneem amul waa ji buñ ko woowee buy dem nu muy def mbomb lay jënd mbomb sangu mbomb boole ci eau de javel yow ngay dem ci yàlla nga dem ci néegu yàlla yàlla ne xuzu zinatakum inda kulli masjid bu ngeen dem ci jàkk yàlla mu ne da ngeen rawal rafet yàlla sax président sax dafa sori président dafa sori wallahi wallahi wallahi boo doon dem ci jigéen joo nopp bu ko takk doo yóbbu tani bi boo doon dem ci góor gu la bëgg a takk ci kër ga ngay nuyoo ji soo yegsee ñu ne xale bu jigéen bii lay takk doo sol yére yu la neex boo doon dem ci kër di fa labar soxna soo yegsee ñu ne diw mii la ñu lay présenté famille bi doo sol yére yu la neex te dem bi sax da nga koy waaj yow foo jëm tey tey xamoo fi ma jëm kaa ngi sama àdduna ak sama alaxira tey laa koy am wala tey laa koy perte loolu ngay wax waaj ba boo génnee ñu ne suu yow de foo yegg si ñu ne ah bismillah léegi nag yow nga jëm kër yàlla nga jëm néegu yàlla wa anna al masajida liman wa anna al masajida aaya bi lu ci topp lillah kon ku moom jàkk yàlla ngay ñëw ci yàlla mel nu la neex moo tax doo fa jëlee dara moo tax dañuy def va-et-vient rek dem ñëwaat va-et-vient mais duñ fa jëlee dara waa ji day génn ci jàkk ji jaar ci keski PMU bi ñaan programme te ci jàkk ji la génne léegi wala nga gis ko mu génn ci jàkk ji léegi di tàppante xale jigéen yi parce que fa mu demoon jëlewu fa dara lu dul va et vient julli gi lay tere def lu bon dafa laaj tadabbur ci sa xel booy julli xel mi nekk fi li ngay def nga xam ko julli gi am toroxlu xusuu yàlla bi muy tagg jullikat yi ci alquran ci suratul muminuun lan la wax qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashicuun alladina hum fi salatihim xaashiciin alladina hum fi salatihim xaashiin yàlla nee na jullikat yi texe nañ ñii julli ñu ne ah mu ne texe nañ mais bu yemoon foofu rek kon ñu ne ñun ñëpp bokk nañ ci parce que ñu ngi julli waaye xoolal aaya bi ziyaada bi alladina hum ñi nga xam ne kon am na istisna mu ngi ràññee mi ngi ràññee mbir mi waaye bu yemoon ci ñuy julli texe nañ rek kon ñëpp ñuy julli kontaan nañ waaye yàlla mu ne ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy toroxlu allahu akbar ci seen taxawaay yi ci seen col ci seen njàng ci seen ruko ci seen sujjóot ba ba ñuy sëlmal dañuy xam kan lañu taxaw ci kanam est-ce que julli boobu la ñuy julli tey ñun li lay war ne julli gi ñuy julli du julli gi yàlla di santaane mooy yàlla dafa wax ci suratul maun ñun ñëpp mokkal nañ aaya bi fa waylun أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين lu ci tegu damay laaj waa baas bi lu ci tegu fa waylun lil musallin yàlla ne xur wa ca safara ñiy julli laa fay dugal xur wi xóot na xóotaay boo xam ne buñ ci sànnee dara balaa muy laal suuf dina am juróom-ñaar fukki at yàlla nee na ñii julli laa fay dugal kon kon kon julli gi am na ñuy julli julli gu baaxul nit di julli ba pare dem safara ngay julli ba pare dem safara est-ce que kon julli nga julli gi la yàlla sant lool moo jara seet gis nga lool dafa jara wax lool dafa jara xam Sénégal nag mbir yëpp dañ ko yombal lépp lañ yombal lépp waaw julli ngeen waaw julli nañ kay waxtu yu jot na jóg leen julli gaa yi jóg jàngu paccax-paccax ci ndox mi këpp-këppal pare julli mbokk yi dafa war a am toroxlu mooy xel mi teewlu yàlla xol bi teewlu yàlla cër yi teewlu yàlla dañu mus a dem ci benn ji bërëb julli timis ba pare rek ñu ne ma defal benn waxtaan bu ndaw waay balaa ñuy tasaaroo ma jóg taxaw ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam ma ni imaam bi doon jiite yan saar la doon jàng ñëpp réer ñëpp réer ñu taxaw ay minute ku nekk di xalaat lan la imam doon jàng allahu akbar ba mu yàgg tuuti ñu doog a trouver loolu mooy musiba nga nekk ci ginnaaw imam nga nekk ci ginnaaw imam di julli xamoo imaam fu mu toll même bu jàngoon qul wallahu qul a'udhu falaq pare ñu ne asalaamaaleykum waa imaam moom ban saar la doon jiitee de nga gis gars yi naan ah ah xaaral ñu xalaat xaaral ñu xalaat musiba weesuwul loolu kon yow sa yaram bi rek moo nekkoon ci jàkka ji dañ ma yónnee benn benn image ci sama boîte Facebook julli ay nit yoo xam dañoo ñëw ci jàkka ji di julli bañ ne allahu akbar yaram yi taxaw ci jàkka ji ruu yi génn am ku génn di téléphoné am ku génn dem marché di jëndi maanaam nit ñi dañuy nekk ci julli yaram yi ñoo fii nekk mais xel mi nekk fi waa ji mu ngi fii ci biir jàkka ji waaye xel maa ngi Dakar ma ngay gérer ay affaire foofu ba dara desu lu dul ay cinq minutes ñu sëlmal ruu bi daal di daw del siwaat fekke taaya bi rek daal ne asalaamualeykum fii genn wàll gi yëpp noonu la ñuy jullee allahu akbar rek ruu bi daw dem marché di nduggi yaay ma jën yow tey de moom yaa salaay togg ay man de maa ngi naaje bu dee xale yu góor yi moom surtout jour boo xam ne combat dafa am ñi ci ëpp duñ ñëw jàkka genn wàll gi ñëw jàkka yëpp allahu akbar ay sama mbër mi moom mbaa tey duñ ko yenu ba ci kaw la ilaha illa allah sami allahu liman hamida yow yal na daaneel waay rabbana walaka alhamdu ndeysaan am na ci koo xam dafa dem jàkk yóbbu écouteur di déglu ñi yenu mbër mi mu ne du jóg de du jóg de ci biir fàtte ne mu ngi ci jàkk ji ñëpp ne waaw kii ku muy waxal ndeke combat bi lay déglu dugg nañ ko dugg nañ ko yenu nañ ko mu ne du jóg ah loolu julli la maanaam mbokk yi foog ñu càmbaraat suñu diine ñu xam ne affaire bi du sport du dem du dem dem ba tefesu géej yëkka ci loxo lem sëgg siggi def ay mouvement daal dem ne damaa demoon sport déedéet dem jàkk du lool jàkk saa yoo fa demee booy génn ku la gis day xam ne kii dafa julli ji woon kon julli day am xusu min qalbin ci biir xol laysa tilka allati yanqiruha saahibuha naqara diik julli nekkul loolu ñuy gis ginaar di def ginaar ginaar gu ñu tegal palaatu dugub tiim ci palaat bi di ko cof cof cof siggi cof siggi cof siggi daal di ne nii loxo yi salaamaaleykum julli du loolu ëpp na loolu julli wees na foofu benn waaye dafa ñëw ci benn xale bu jigéen ne ko dama bëgg mooy ak yàlla yow ma bëgg ñu mooy yàlla man ak yow ñu njaaloo ma jox la xaalis bu bari ndaw si xool ko ba ci yàgg ne ko man li nga wax d'accord naa mais doo ma jox xaalis mu ne lan laa lay jox loo wax ma def ko mu ne ko da ngay dem ci jàkka jële nga julli fa ñeent fukki fan bu julli gi jeexee nga ñëw waa ji dem yóbbaale satalaam ak si yaadam dëkk ca jàkk ja waxul ma sax mu julli ñibbi mais dafaa dëkk julli 40 jours yi ba mu jeex mu fàtte ndaw si ba mu am ay weer muy dox benn jour rek dajeeg ndaw si ndaw si ne ko waaw kii du sax rek mu ne aouzu billahi min ashaytani rajim daat daw kooku ban julli la julli ñun tey bu ñu benn xale bu jigéen joxoon rendez-vous suñu portable ci julli sax duñ ko fay tem mu sone sax ñu ne xam naa moo may woo nga génn ci julli gi di xool numéro bi kon mbokk yi julli du cippi-cippi comme ni ko ginaar di defee koj-koj déedéet wa yaxtifuha xatfa alxuraabi wa yamurru biha marra sahaabi du ni ko baaxoñ di defee du ni du niir wuy tiim nit ñi di dem yëpp du julli kenn du ko def ni ko ginaar di defee kenn du ko def ni ko baaxoñ di defee kenn du ko def mu mel ne niir wala tiim di dem naa ko def te gaaw waay ay xaar ma jóg këpp-këppal waaye gaaw leen bopp léeg-léeg sax nit ñi comme ci jamono koor la ñuy nekk da ngay gis nit ñi di laajte waaye yow seen jàkka ji ilimaan bi ñaata rakka lay naafi la ñu ne treize ñu ne wuyu lan xaaral yow ñu ne deux mu ne wu foofoo foofoo gaaw foofu mooy jàkk rapide ku bañ station monte fa ngay dem gars yi dañuy laajte allahu akbar dañuy laajte fan la mbir mi gën a gaawee fan la gën a yombee la ilaha illa allah pourtant kenn ci ñun bu la président invité woon ndogu tey nga ñëw toog ak moom da ngay yàkkamti audience bi jeex wala doo yàkkamti dama laajte de duñu yàkkamti lu tax président dafa sori naa bàyyi président ma gën a wàcc ki nga bëgg a takk invité la ndogu ki la bëgg a takk invité la ndogu ku jigéen ki nga bëgg a takk invité la ndogu ki la bëgg a takk invité la ndogu nooy demee soo demee doo bëgg ndogu mu jeex buñ ndogoo ba pare nañ ataaya ñu ataaya ngay nañ meew ñu meew ngay nañ doxantu xoolal doo bëgg doo doo bëgg a doo bëgg a dem lu tax parce que da nga bëgg rek mu jege la nga toog ak moom te doomu aadama la yàlla nag lu tax ñun bëgguñu toog ak yàlla lu tax bëgguñu yàgg ak yàlla ci julli gi sax da ngay gis ku pare rek daw toog ci ginnaaw jël uppukaay wuuu mel ne allahu akbar billahi xamuñu lu ñuy julli ñun xamuñu ko bi ñuy ubbi xoolal lu ñu waxoon jaamu yàlla yëpp jullee ci gën a màgg jaamu yàlla mooy julli mooy am nga audience da ngay wax ak sa borom audience am nga audience yaa ngi wax ak yàlla moo tax yonent bi nee na amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud faksiru fihi du'a bu ngeen rukoowee mu ne màggal leen yàlla bu ngeen sujoodee mu ne jege ngeen yàlla ñaan leen ko wasjud waqtarib sujootal jege yàlla imagineel yow nga ñëw di wax ak yàlla ngeen am audience yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla subhaanahu wa taala nee na qasamtu salaat bayni wa bayna abdi julli yàlla daf ko séddale digganteem ak jaam soo nee bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin yàlla mu ne sama jaam bi tagg na ma hamadani abdi sama jaam baa ngi may tagg moo tax Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah wala radiyallahu anhu su daan jàng julli buy jàng fatiha bu doon julli buy jàng fatiha su ne alhamdulillahi rabbil alamin danaan tekk arrahmani rrahim maliki yawmiddin noonu lay def ay mu pare ñu ne ko waayoo yow ay ni nga ciy noppee dafa yàgg mu ne yàlla laay may mu tont yàlla laay bàyyi mu may tont comme su ma waxee yàlla day wax su yàlla di wax dama koy diglu qasamtu salaata bayni wa bayna abdi dama séddale julli sama digganteeg sama jaam sama jaam bu ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla taxaw naan sama jaam baa ngi may tagg su ne arrahmani rahim mu ne majjadani abdi yàlla noonu lay toppee aaya yi ngay wax muy dem ba nga yegg ihdina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim gayri maxdubi al mu ne wali abdi ma saala sama jaam fii mu toll lépp lu ma laaj ma jox ko sama jaam bi fii mu toll lépp lu ma ñaan ma may ko ko allahu akbar foofu nag ngay waxee ihdina sirata almustaqim yàlla ne sama jaam bi lu ma ñaan ma may ko waaye boo ñëwee rek alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim malik yawmid din yaakaar naa yaakaar naa daal nee na qul huwa allahu samad ku fa ne allahu akbar loo koy jële looy jële foofu ñooñu sax ñooy ñu góorgóorlu ñu waaye ñenn ñi nga xam ne moom ay ceddo lañ dañuy taxaw ci kanam naan naan yàq na abudu yàq nastain ku yàq na abudu yàq nastain nag doo jële ci julli gi dara waaw au lieu ñu ne iyyaka na abudu dañ naan yàq na abudu yàq na abudu yàq na stain ku yàq na abudu yàq na stain nag julli gi doo ci jëlee dara moo tax imam ali radiallahu anhu wa arda dafa toog ci jàkk ji benn waay dugg julli ñaari ràkk mu ne ko jullil julli woo waa ji daal di jogaat mu ne ko jullil julli woo waa ji jogaat mu ne ko jullil julli woo waaye yow ñaata at nga nekk ci lii mu ne ko ñeen fukki at mu ne ko ñeen fukki at yi boo ci deewoon da ngay dem safara parce que julli woo mbokk yi julli nekkul lu ñuy cof-cofee nekkul lu ñuy këpp-këppal nekkul ay niir wunu tiim di dem nekkul loo xam ne da nga koy def pour mu wàcc la mu gaaw comme ni ko ñenn ñi waxee a xaaral xaaral ma gaaw def ko mu mu pare ñenn ñi noonu lañ ko jàppee waaw def ko mu wàcc la rek affaire boo xam da nga ko war a def defal rek déedéet loolu du julli julli sila la benn buum bu lay jokkaleeg sa borom julli munaajaat da ngay déeyoo ak sa borom allahu akbar yonent bi nee na bu ngeen rukkoowee màggal leen yàlla su ngeen sujjoodee ñaan leen ndax jege ngeen yàlla abdullah ibnu mubarak nee na su ma sujjootoon damay ñaan di ñaan di ñaan ba xorom si nga xam ne sama soxna moom lay xorome dama koy ñaan yàlla xorom bi nga xam ne sama soxna daf koy xorome damay ñaan du ma bàyyi dara mbokk yi julli fa salaatu al muqaama tamma julli gi nga xam ne nit ki daf koy def mu mat sëkk mu xam ne man julli naa tamaman julli dëgg mu mat sëkk hiya allati taaxuzu xaqaha min altaamuli walxashiyati walxudu والسكون واستدارة عظيمة المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه julli dëgg-dëgg gi nit di def mu xam ne man tey julli naa julli gu mat mooy julli gi nga xam da nga ko jox àqam àq julli dafa am xaq nit day julli ba pare yonent bi nee na nit day julli ba pare malaaka yi jël julli gi daal di koy taxañ ba mel ne balu tens ñu ne ko ko rëll ci ginnaaw gi ne ko dayyaaka allah kama dayyaata hazihi salaa ni nga sànke julli gi yal na la yàlla sànke noonu moo tax ñu sànku bëri ci réew mi xoolal nga julli ba pare lu tol ne malaayika jël julli gi lem taxañ ba mu dëgër ñu ne na ku rel ne la ni nga sànke julli gi yàlla na la yàlla sànke noonu julli googu baaxul est-ce que loolu jarta moytu kon loolu est-ce que jarta xam lépp luy yàq sa julli lépp luy tax doo jox julli ak xam mbokk yi jigéen jiy togg day jox togg bi ak xam wala du ko jox damay laajte de kii tal gaz day jox gaz bi ak xam wala day ñëw taale ni mu ko neex kii dawal oto day jox oto bi ak xam wala lu nekk da nga koy jox ak xam même kii tabax day jox ciment bi norme bi béton bi norme bi fer bi fondement bi lépp norme léegi yow ngay julli doo jox julli ak xam doo jox julli li li mu laaj doo ko jox ak xam wareefam li koy baaxal doo ko def da ngay dëkk ci di këpp-këppal ba dee yàlla dugal la safara wax naa leen léegi yàlla moo ne fa waylun lil musallin xur wa ca safara yàlla nee na jullikat yi laa ciy dugal ixwatal iman julli googu mooy goo xam ne bi nga ko joxee ak xam ak gi lan la ëmb min attaamuli ci xerewlu ci teewlu wal xasiya ak tiit ci kanamu yàlla wallahi mbokk yi kenn ci ñun boo doon dem examen nga bind ba pare di joxe foo yi ndeysaan noo koy joxe da nga koy joxe ci toroxlu ci ki nga koy jox pour mu yërëm la xoolal ñun nit day julli ba pare du xelawlu sax ndax yàlla nangu na ko wala yàlla nangu na ko nanguwu ko te bi nga jullee ba pare li la waroon soo gisee nit bu sëlmalee ci julli rek daan ne astaghfirullah ñetti yoon mooy yi nga doon def ay bakkaar ci biir julli gi ci ay xalaat léeg-léeg xel mi daw dem kër ga léeg-léeg xel mi daw génn jàkka ji bi nga paree nga jéggulu yàlla waaye loolu mooy ki xam julli dañ ko war a jox àqam comme liggéey bu nekk niñ koy joxee àqam waaye julli dafa war a ànd ak tiit yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla da nga war a tiit ndax li nga def nii bi nga paree yàlla nangu na ko wala nanguwu ko ndax malaaka yi dóor nañ la ko wala dóoruñu la ko julli goo julli rek noonu la benn ñu jël ko wala ñu delloo la ko def nga ko ba pare est ce que jël nañ ko wala jëluñu ko loolu war nga ci bàyyi xel war na war na la war nga war na la xalaat loo waaye wal xudu est ce que toroxlu nga ci julli gi est ce que bi nga taxawee ci kanamu yàlla taxaw nga taxaw bu normal est ce que bi nga rukoowee ruko bi baax na est ce que bi nga sujootee sa juróom-ñaari cër yëpp sujoot nañ boo sujootee sa juróom-ñaari cër ñoo war a sujoot est ce que juróom-ñaari cër yëpp teg nga ko ci kanamu yàlla julli dafa am lu rëy lu muy wane ci kanamu yàlla ki sujoot moo tax ñu ne sujoot daganul fenn fudul ci yàlla foo ko def xaraam na bokkaale nga ci yàlla rek la dagan juróom-ñaari cër yooyu boo ci dindi jox mbindeef alku nga yowmal qiyaam sa digganteeg sa borom yàlla moom loolu amoo droit jox ko keneen xudu toroxlu sukuun dal dal julli dafa laaj dal xoola kii julli di wagu defaraat mbax ne defaraat ay verre portable bu sonné nga jël moo tax kenn warul julli di yor portable daf lay tere toroxlu da lay tere dal am na ci ñenn ñoo xam ne portable bi lay sonné ñu coupé au lieu ñu fay ko coupé ki leen di woo xamul na ñii ñi ngi julli day wootawaat mu sonewaat mu fay kereng kereng kereng kereng ba nit ñi sëlmal julliwul yàq julli nit ñi bàkkaar weesuwul lool nga yor sa portable muy soné ci biir jàkka ji bañ nga bañ koo fay bàkkaar weesuwu ko mbokk yi soo fàttee mu soné fay ko soo paree nga taal ci biir julli kenn du ci wuyu wala kon fayal fay ko boo paree nga wuyu nga taal ko képp ku la woo nga wuyu ndax julli dafa am lu mu laaj dafa laaj dal loolu ñu naan sukuun allahu akbar imam ali su demoon xeex xare xam ngeen kañ lañ koy faj dañuy bàyyi ba julli jot jaasi yiñ ko doon caw xeej yiñ ko doon fet fitt yiñ ko doon jam pour ñu dindi ko faj jam-jam yi dañuy bàyyi ba julli jot su ne allahu akbar rek gaa yi daw su paree julli gi su xoolee gis ñu band yaram bi mu xam ne gaa yaa ngi ko doon faj ndax bu kàbbaree dootu fi nekkati loolu mooy julli julli mbokk yi dafa laaj istixdaar azima al maabud mooy nga teewlu mooy nga teewal yàlla subhanahu wa taala ki ngay jaamu nga teewlu ko nga jàpp ne yaa ngi nii ci kanamam ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit buy julli su ne allahu akbar yàlla ne ko jàkk di ko xool su xoolee fële yàlla mu ne sama jaam bi am na leneen lu ko yitteel lu dul man boo teggee sa jëj ci yàlla rek yàlla pare na ci yow waaw boo ne allahu akbar rek yàlla samp na la ay gisam boo gestoo gestuwaat wala nga xool feneen rek yàlla pare na ci yow ndax nee na am na leneen loo gis am na leneen lu la yitteel am na leneen looy xool ku dul moom kon julli dafa laaj teewal ki ngay jaamu jalla jalaaluhu wa taqaddasat asmaau sifatuhu wa asmaauhu wa zalika ayuha alixwa an alqasda min min alsalaa wa sairi alibadat huwa tazkiru alinsan bi rabbihi al ala allazi xalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada mbokk yi ci yàlla julli dëgg-dëgg dafa am jubluwaay dafa am jubluwaay koor gi ñuy woor dafa am jubluwaay añ màkka dafa am jubluwaay loolu dafa sori lan mooy jubluwaayu nit di xëdd weeru koor lan mooy jubluwaay bi mooy nga bañ a xiif bëccëg bi ndax mu jàppale la lan mooy jubluwaayu boo feebaree ñu indi la garab nga naan naan bi nga naan garab gi lan mooy jubluwaay bi pour nga wér lan mooy jubluwaay booy tukki nga am loo war muy pour doo sonn pour nga gaaw a yegg julli tamit dafa am jubluwaay lan mooy jubluwaay bi mooy mu fàttali la mu fàttali doomu aadama ne dafa am buur bu ko bind am lum ko sant mu jóg di def loolu saa yoo jógee di julli sa xel ci loolu la war a dem man kat dama am benn boroom boo xam ne moom laa bëgg moom laa gëm moom laay topp moom laay jaam moom boroom boobu waxtu wi ma ko war a jaamu jot na bismillah looloo tax boroom xam-xam yi naan kuy tëdd guddi di fanaanoog soxnaam amul lu mu préparé tàngal ndox ci waxtu sedd ñu ne bu mu jege jabar ji bu mu seeg moom gis nga lu tax ndax waxtu wi la ñuy bañ mu faat ko gis ngeen waaye lii est-ce que nit ñi xam nañ ko seen yoon nekk ci parce que dem jàkk fajar du yoonu sénégalais yi ñoom seen yoon nekk ci jàkka joo dem fajar du fees jàkka joo dem nag laa wax koñ boo dem jàkka ji du fees fajar ana gaa yi soxna yee leen téye moo tax mënuñoo ñëw soxna yee leen teg loxo ku sa teg ku sa soxna teg loxo nag ba nga bañ wuyu ji yàlla fajar bisa ngi ñëw dana yuuxu ba ñëpp ñëw mun a jël leen yóbbu jàkka ja ma ne ku sa soxna teree dem wuy ji yàlla fajar bisa ngi ñëw dana yuuxu ba ñëpp ñëw mun a jël leen yóbbu jàkka ja du moo la tere woon dem jàkka ja tey nag nee na ñu yóbbu la kon nag ku yebo boo déggee asalaatu xayru min an nawm nga xam ne yow la ñuy woo yow yow la ñuy woo woowuñu Jean woowuñu Paul woowuñu Albert yow la ñuy woo yow Muhammad yow Abdallah yow Ismaïl yow Souleymane yow Khadija yow Zeynab yow Fatima yéen la ñuy woo ku lay woo nag lu ci war kii nodd lu muy wax hayya ala salah ñëw leen ci julli gi loolu lay wax ñëw leen ci julli gi ndeysaan ñëw leen la ñuy wax xoolal julli dañuy woote kenn du ñëw stade bi kenn du woote làmb ji kenn du woote ah wala dañuy woote mbokk yi làmb bi kenn du woote te dafa am paas bu mbër mi di bëre ban heure lay bëre six heures et demi cinq heures ah gars yi kañ la ñuy dem huit heures ci suba allahu akbar ba pare am istidaad préparé watu xoos bopp yi kiris karas tube yi check down jëngal ku nekk di bonde góor ak jigéen lan la ay sunu ngand mi mooy bëre tey ñëpp dañ ko waajal bu julli jotee kenn du ñëw kenn du waaj kenn du ñëw fo rek Sénégal li fi nekk mooy fo moo fi nekk caaxaan ba pare nit ñi bañ ko wax moo tax dëkk bi nii rek lay mel bu leen yaakaar ne changer président mooy tax dëkk bi neex mukk mukk mukk mukk changer président taxul dëkk bi neex lenn dong la ñuy changer dëkk bi neex inna allaha laa yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla nee na bu ngeen bëggee dëkk bi changer da ngeen di changer yéen seen bopp da ngeen di changer jikko yu bon yi changer xalaat yi changé melokaan yi bàyyi col gu bon gi ci weeru koor lañ nekk mais xool leen dëkk bi démb sama benn xarit mu ne ma Petersen kenn woorul ñëpp ay añ mbaar yaa ngi takardaas ci weeru koor amuñu sax kersa ci yàlla benn waay nee na dama jékki-jékki gis benn baas rek baas bu toll nii ñu jékki-jékki rek midi rek ñu indi bool yi ñëpp toog ci weeru koor moo tax réew mi ñu jëm baaxul de wattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum xaas te su boobaa loolu olof yi naan ñax bu wow day làkk bu tooy jigéen ñi kenn solatul lu baax góor ñi moom takkatuñu sax tube yi seen ndigg xale bu góor boo gis silib ba mu jiite la ngay feeñ te la ca ruslu mooy silib bi toog na quatre-vingt-dix ans footuñu ko xàll ñuul kukk ba pare amay bën bën nag amay bën bën salte ba bëgg dee yenn saa yi nga gis ku nekk ci jàkk ji su jóot nga gis silib bi ci biti ane xam nga yow julli woo da ngay font rek loolu julli la julli di ba pare sa silib jigéen ñi foog ñu defaraat suñu mentalité yi ba pare kan la ñuy roy ci loolu loolu nag sax baaxul ci góor waxuma laa jigéen di ko def la ilaha illallah te kooku di ko def soo ko laajoon noo tudd mu ne noo tudd mu ne Khadija Zeynab turu jullit la lay jox ndeysaan yal nañu yàlla soppi mbokk yi fa salaatu sila julli buum la bayna al abdu wa rabbi buum guy jokkale diggante nit ak boroomam kan moo bëgg a jokk ci yàlla del julli booy julli rek léegi nga egg ci yàlla ku bëgg a dem ci yàlla ku bëgg a egg yenn saa yi nga dégg ku ne ñun man damay gis yàlla yenn saa yi nga gis ku ko wax man damay gis yàlla gis naa yàlla gis nga yàlla ba pare di kiris karas ndeysaan mel nañu yàlla jubal allahu akbar ah am nga lu Aboubacar Siddiq amul woon de am nga lu Omar amul woon Ousmane ak Ali ndeysaan imaamu Malik Ahmad Shafii Abu Hanifa amuñu woon loolu yow xanaa sax boo dëkkoon ci jàkka ji sax ñu utal la ci benn pantere nga nekk fi sax quatre-vingt-dix ans xanaa sax boo génnee nga ni man gis naa yàlla nit ñi moom duñ ci sikki sàkk waaye waa ji day dem soirée ñëwaat day dem soirée samedi ak dimanche jour vendredi mu ne la gis naa yàlla allahu akbar am nga lu Moussa amul woon Moussa yonent yàlla di wax ak Moussa wax ji neex Moussa ne yàlla dama laa bëgg a gis yàlla ne ko Moussa munoo maa gis lan taraani munoo maa gis waay yàlla il faut ma gis la yàlla mu ne ko unzur ila al jabali in istaqarra makanahu sawfa taraani kon nag comme nag maa bëgg a gis Moussa xoolal montagne bi montagne la ko wax de waxul xeer montagne montagne bi bu saxee dinga ma gis borom bi nee na falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa xarra musa sa'iqa yàlla nee na ba ma feeñoo montagne bi waxul ba ma génnee ndax yàlla xejul ci montagne bi ba ma ko feeñoo lan mooy feeñu tuuti rek ci man la wan woon montagne bi borom xam-xam yi nee nañ boo ko doon misaal mooy ferñeent jigéen buy boyal këriñ bu ëffee bu uppee fett fett yooyu di génn ñu ne benn la yàlla génn ci leeram sànni ko ci montagne bi montagne bi explosé Moussa xëm kon bu ko gisoon fu mu jëm sunu benn dëkkandoo doomam daa ñëw ne ko papa mu ne ko ah mu ne ko gis naa yàlla mu ne loo ko wax mu ne waxuma ko dara mu ne ko tey ma waay rek mu jël bale taxaw jàpp waa ji dóor ko bale taxaw bi ba bale taxaw bi damm ñëpp koñ bi yëpp daw ñëw lan la lan la mu ne kii gis yàlla man may plombier di taqale gu dégg bëccëg waxu ko samay problème waaye kii damay man ni ma bëri problème mu ngi nii bala muy lekk bala muy lekk ma dem taqale ji ñëwaat mu gis yàlla du ko wax sama papa dafa bëri problème pour mu régler ko ndeysaan wallaay wax na dégg maanaam daf ko bëggoon jàngal rek tey ji mbokk yi ku gisoon Macky Sall ñun ñi toog fii nga gis Macky Sall nga toog ni mu toog da ngay dem rek ñëwaat doo ko wax dara te yow amoo liggéey amoo kër amoo dara amoo oto doo ko wax dara waaye sikki nekk ci ne di nga ko wax dara waaye président man wax dëgg yàlla liggéeyu ma bu dee liggéey rek moo la jaaxaloon moom dang loolu ngay njëkk a wax bu dee ku amul oto la nag li muy wax mooy waaw même ci kat kat yi bu dee ku amul kër la lu muy wax président juróom-ñaar fukki at maa ngi luwee man ak sama njaboot di ma liñ ci kër wala waaw kon ku gis yàlla nag loolu ay caaxaan la nañ leen jaamu yàlla ma ne ku bëgg a dugg ajana jaamul yàlla nañ bàyyi fo nañ bàyyi tappale gi nañ bàyyi làmbatu gi nanu sellal suñu diine nanu xam ne munu noo nax yàlla munuñu ko dañuy sonn suñu bopp munu noo nax yàlla munuñu nekk ci caaxaan yi di fo ba pare ëllëg ajjana ñuy buuxanteeg ñoom Bilal ñoom Aboubacar ñoom Omar ñoom Ousmane ñoom Ali yi munul nekk munul nekk xool leen ñee luñ doon def ngeen xool ñun lu ñuy def julli buum la si la guy jokkale nit ak boroomam mbir la moo xam ne day woowal day wone yow am nga koo bëgg ba lu mu la sant nga def ko nga def ko naam taqwi biha mahabbatal abdi li rabbihi julli day dëgëral cofeel gi dox sa digganteeg sa boroom ndeysaan soo bëggee yàlla da ngay yàkkamti waxtu wi ñuy nodd su mbëggeel nekkee sa xol nga bëgg yàlla da ngay yàkkamti dégg ñu naan hayya ala salaa baloo yoroon nga sànni ko ndax wuy ji sa borom ndax day wane ne yow am nga buur boo bëgg xoola waa ji bi waa ji la bëgg rek ba bis bu nekk mu yàkkamti dajeeg yow wala ndaw si la bëgg ba bis bu nekk mu yàkkamti dajeeg yow kon sunu borom nag subhanahu wa taala ibnul qayim kenn la ci borom xam-xam yi nee na rahimahullah fa inna almuhib yatalazzazu bi xidmati mahab mahbubihi wa tasarrufihi fi taatihi wa kullama kanat almahabbatu aqwa kanat talazzuzu taa wal xidma akmal ndeysaan sëriñ bi nee na ki bëgg day bànneexu ci liggéeyal gi muy liggéeyal ki mu bëgg gis nga ndaw si ba mu la bëggee dafa bàyyi kër ndeyam bàyyi kër baayam dugg oto dëkk ak dëkk mu fekki la fa nga dëkk bi mu ñëwee ci sa service la nekk sa yére sa yaram sa biir sa lépp mu taxaw ci fàtte lépp léeg-léeg sax mu changé santam soo ko ne noo tudd mu ne madame Diop madame Thiam madame Sarr bàyyi na sax santu ndeyam ak bàyyam parce que daf la bëgg ki bëgg day bànneexu ci liggéeyal gi muy liggéeyal ki mu bëgg loolu mooy julli yow mi bëgg yàlla ci jamono bi ngay woor wala ngay jaamu yàlla di julli wala di def jaamu yàlla bu la yàlla sant da nga ci am bànneex ndeysaan parce que da ngaa bëgg yàlla inna al muhibba liman yuhibbuhu mutiun borom xam-xam yi nee nañ ku bëgg topp ki nga bëgg jigéen ba mu bëggee góor nu mu def da ko topp yenn saa yi nga gis koo xam ne ci étage lañ ko takkee mu sëyi ci néegu ñax waa ji naan ko ah soxna si gis nga de mu naan ko ah lii du dara bu soobee yàlla dinaa toog fii ba nga xëy teg ko taaxum kaw xoolal allahu akbar c'est parce que dafa bëgg yow nga ni da ngaa bëgg yàlla nga nekk ci sa néeg nga dégg wootekatu yàlla bi di woote naan hayya ala salaa assalaatu xayru min an nawmi fi nga dëdd salal nga naan waa ji laa an nawmu xayru min assalaa di ko tont wala baraada bi tera laa julli ji baraada am na ñoo xam ne baraada rek moo leen di teree julli ji baraada ataaya am na ñoo xam ne xale bu jigéen moo leen di teree julli ji dàkk ji day nodd ba heure bi jot ñu li xaam lépp waa ji toog rek am na ñoo xam ne télé moo leen di julli tere julli ci télé match bi quoi match bi match boobu ngay seetaan am na match bu ko gën a rëy mu ngi ñëw te mooy bis boo dajeeg yàlla jegaa football match boobu match bi ngay seetaan na nga yëg ne am na match bu gën a rëy bu dox sa digganteeg sa borom footballal boobu jéemal gañe boobu jéemal taxaw match boobu waaye bis boo ko seetaanee ba mu jeex boo dajeeg sa borom di nga réccu mu ne ki bëgg ci jaamu ki mu bëgg wala mu koy topp ci li mu bëgg wa kullama kaanat al mahabba aqwa saa yu mbëggeel gi gënee dëgër kaanat talazuzu taa wal xidma akmal allahu akbar li la li la waa ji gën a bëgg li la ndaw si gën a bëgg keroog la la gën a keroog la la gën a mën a toppatoo jigéen joo fi gis muy toppatoo borom këram toppatoo bu dëgër bu raw da ngay gis ne ndeysaan mbëggeel gee bëri waaw kon ki bëgg yàlla saa yu mbëggeel gi dëgëree saa yu mbëggeel gi dëggoo da ngay gis buy jaamu yàlla ngay xam ne kii day jaamu yàlla kii fontuwul caaxaanu jaamu yàlla du ko tëkkaleeg lenn du ko tëkk kenn ndax boroomam la gaa yi dégg naa Cheikh Ahmad Bamba da doon liggéey lu benn sàkket gaa yi defar sàkket bi ba julli jot mu romb leen jugu ci jàkk ji ñëwaat xool gis ñu taxaw mu ne julli ngeen ñu ne ko eh, dañuy xaar ba mu ne taxaw leen ñu taxaw mu ne bi ñu bi waa ji noddee fan ngeen yemoon ci sàkkat bi ñu ne ko fii wan ko digg bi te dem nañ bay waay jeexal mu ne lépp rocc leen ko dara baaxu ci ndeysaan kooku bu del siwaatoon tey Sénégal bu Cheikh Ahmad Bamba del siwaatoon tey Sénégal moom mi santaane woon liggéey gars yi di ko liggéeyal bàyyi julli mu ñëw ne lépp dindi leen ko mu ñëw fekk waa Sénégal bàyyi nañ julli bu yàgg allahu akbar allahu akbar dañuy tiitaroo mag ñi rek boo gis na xee ñun akasa ñu ngi ci diw a jajëf waay fekk dara du ci dëgg yàlla nee na tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusalunna amma kaanu yaamaluun yàlla nee na ñi ngeen di tiitaroo ñooñu dem nañ bu yàgg dem nañ bu yàgg la ñu defoon ñoom yóbbu nañu ko yéen lu ngeen def lañ leen di laaj lii kay leer na tiitaroo ku baax du tax nga baax de tukulóor yi nee na ñaamanam ñaamataa ko ɗaanonam ɗaanotaa ko hoyɗanam hoyɗata longere maaro nde koye huno ko ma tan tina ina weni ina safi kono sa waɗe hoƴƴuduma tinata ko ina wuli danko ceeb bi ci gémmiñ gi rek nga koy teg nga yëg ne dafa saf dafa neex waaye boo dankee dank yu nekk bu ndogu jotoon nga dank ba mu ba mu rafet nga lem ko ba mu ron nga teg ko ci sa doq looy yëg dafa tàng yi mais doo yëg ne dafa saf jaamu yàlla yow rek yaa koy defa sa bopp jigéen mënul jullil jëkkëram góor mënul jullil jabaram lu sa jëkkër di julli yow doo julli bu fajar jotee mu yow dem jàkk yow bàyyi la ci kaw lal bi ngay nelaw bu ngeen deewee yéen ñaar yàlla tàqale leen sikk nekk ci bu baay bi julli doom du julli comme li xew ci jamono góor gi day xëy dem jàkk bàyyi ñëpp ci kër gi ñuy nelaw am na ci borom kër yoo xam ne ñeemu wu ñoo yee seen jabar fajar ndax boo leen yee doo ndogu yow man nga yee yow nga naan waaw waaw kon xaaral tuuti kon kii ah dangaa xaw a sonn xoolal di ur ay prétexte ñan leen yàlla yërëm idan ayuhal ahibba falyazin al abd imanahu wa mahabbatuhu xam nga lu ñu war fii ñu toll nii mooy kenn ku nekk ci ñun nga peese sa ngëm ak sa mbëggeel ci yàlla peese ko falyazin al abd na jaam bi peese imaanuhu wa mahabbatuhu ngëm gi nga gëm yàlla peese ko nan la toll ak mbëggeel gi nga bëgg yàlla waaw akbar benn waay dafa doon tukki waa ju bëgg jabaram benn couple boo xam ne sëy nañ juróom fukki at kenn mësta def moroomam lu ko metti ndax ni ñu bëggante waaye ku góor ki dafa dal ku jigéen ki dafa tàng te ñoom ñaar mën nañoo nekk benn bis ñu ànd sorti dugg ci bateau ñu dem ba digg géej vague yi bëri géej gi sambaraax bato bi di waaj a lab ñi nekkoon ci bato bi kenn ku nekk ut foo jàppandu ak a yuuxu di ut lu la musal góor gu nekk ku àndoon ak doomam te doom ji wala ku àndoon ak jabaram jàpp doom ji moom waajooju mu ngi toog ci benn place rek yënguwul jabar ji xool ko ba ci yàgg rek jéppi ko ñëw rek poñe ko ne ko yow xawma lu la dal ñépp a ngi bëgg a musal ñi ñi àndal yow nga ni tekk te kaaral nii waa ji daal di génne paaka rek teg ko ci baatu ndaw si ndaw si daal di reetaan mu ne ko waaw ma lay rendi ngay reetaan mu ne ko damaa xam ne dooma rendi mu ne lu tax mu ne parce que dang ma bëgg ku bëgg doo lor ki nga bëgg xam ngeen lu ko waaji tont waaji ne ko waaw man it bu fekkee da nga am ci man kóolute ne dama laa bëgg ba bi ma tegee paaka bi sa baat nga jàpp ne paaka bi du dagg parce que xam nga ni paaka bi ci ay loxo yu wóor la nekk ki la bëgg moo ko yore man tamit fii ma toog nii damaa am ku ma bëgg wóolu ko ba xam ne gaal gi ma nekk du ma labal mu ne ko kokkal la mu ne ko sama boroom allah subhanahu wa taala moo tax ma dal xam naa ne lii dañ ciy génn ñun ñëpp gaal gi du la gis nga de mbëggeel li ñu war mooy ñu natt sunu ngëm mbokk yi kenn ku nekk fi nga toog nattal sa ngëm sa digganteeg sa boroom sa ngëm fan la toll gëm gi nga gëm yàlla fan la toll ku nekk da nga war a xëy di càmbar sa ngëm sahabatul kiram dañ daan xëy di xool seen ngëm yàlla ndax dëggu na wala dëggool yonent bi sax da ko doon contrôlé dañ daan toog ba caag rek yonent bi ne amuminuuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla sahaaba yi ne naam benn bis Omar ne ko waaw waaw ñun dañoo gëm yàlla dëgg dëgg ngëm yenent bi ne fama alaamatu imaanukum ya Omar Omar luy wane ne yéen gëm ngeen yàlla Omar ne narda bil qada wa naskuru fi raxa wa nasbiru alal bala narda bil qada su yàlla nattoo teg ñu dara dañu koy nangu narda bil qada mooy dañuy nangu ndogalal yàlla est-ce que ñun Sénégal nangu nañ ndogalal yàlla déedéet ñun nanguwuñu ndogal yàlla ñun ku feebar dafa am ku la xool dafa am kër goo lekk dafa am ku la joxoñ dafa dafa am meer màtte dafa am 4-4 buy saraxe yàpp doomu jinne dafa réer ñun nanguwuñu ndogalal yàlla narda bil qadar xoolal te dafa bokk ci arkaanul iman al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi moo tax mbir yi foog ñu xoolaat ko jàngaat ko càmbaraat ko xool suñu bopp yonent bi ne Umar ak ban mu ne ko naskuru firraxa su neexee dañuy sant yàlla duñ sant kenn Sénégal nag bu neexee ñu ne sëriñ bi la wala yaayam la ngay dégg gouvernement bi bu demee ci yenn xew-xew yi léegi dégg ñu ne sëriñ bi yaa ñaanoon daaw mu taw yow yaay borom na am mu am yow la yow waaw soo nee na am rek day am duñ sant yàlla Sénégal yàlla du def dara ñoom ñooy def lépp su waa ji amee dara ñu ne ko sa liggéeyu ndey la xamoon nañ ne sa ndey lim fi daj di nga am lii kenn du sant yàlla naskuru firraxa su neexee kan lañ war a sant mooy yàlla nit ñi nañu xam ne yàlla lañ war a sant léeg-léeg nga gis tant bu ëpp bii ci baas ak seize nga ni lu xew fii ñu ne cant ku ñuy sant diw musuma gis baas ci Sénégal lii lan la ñu ne dañuy sant yàlla musuma ko gis man man laa wax man laa wax xaw ma yéen nag musuma ko gis man lan la yàlla wax fa amma bi ni'mati rabbika xéewal yi ma leen defal wax leen ko sant leen ma ci xéewal yi kan ma mën a sant yàlla ci xool gi ngay xool bu fekkoon ne boo xoolee ba ngoon nga bëgg a tëdd ñaari ponkal yu ëpp Bombardier ñëw ne la facture baa ngi nii sa waaye nga ne ñu ne li nga yendoo xool fayal ngay wax ñeneen ñaar ñëw ñu yor nopp li nga yendoo dégg ah ngay wax ki yor ngelaw lu ñëw ne la li nga doon noyyi fayal fayal facture ku nekk indi facture pourtant SDE boo naanee ba weer dee da ngay téléphone boo téléphoné ba weer dee da ngay courant boo taalee ba weer dee da ngay yàlla nag ngay xool bi nga juddoo ba léegi yaa ngi xool te sax daf laa ne xoolal lu ma neex de nga ni ko xooluma te yàlla coupéwul bët yi coupéwu ko coupéwul bët yi nopp bi yàlla mi ngi bàyyi muy déglu loxo yi ñi ngi yëngu tànk yaa ngi dox lépp yàlla bàyyi na mu normal te defoo ko ci li ko neex allahu akbar kon yàlla mooy kan ci ñun moo tax mu ne naskuru firraha dañuy sant yàlla mu ne ko ñetteel mu ne ko nasbiru alal balaa bu nu yàlla tegee balaa ñu muñ muñ muñ as sabr muñ ñu ngi ci weeru sabr weer wi mooy weeru muñ ramadan shahru sabr weeru koor weeru muñ la looy muñ ak lan mooy muñ lan mooy muñ mooy xabsu nafs ala ma takrah mooy poñe bakkan bi sa bakkan ngay poñe nga defloo ko li mu bëggul loolu mooy muñ poñe bakkan bi defloo ko li mu bëggul weeru koor lañ nekk bakkan bi dafa bëgg naan nga ni ko doo fi naanee fajar ba timis dafa bëgg lekk nga ni ko doo fi lekk dafa bëgg xool lu bon nga ni ko doo ko xool daf ko bëgg a def nga ni ko doo ko def dafa bëgg nga ni ko doo ko def doo ko def de ngay xeex ak bakkan bi fajar ba timis jot loolu mooy muñ sabr yàlla daf ñu jox weer bi nag pour ñu jàng ci pour bu weer dee ñu mën cee continuer benn mooy lekk ak naan dafa dagan wala daganul dafa dagan mais instant bii ñu toll li mu dagan ci yow poñe nga bakkan bi ba mu bàyyi ko te dagan na kon nag ni nga poñee bakkan bi ba mu bàyyi lu dagan est-ce que munoo koo poñe ba mu bàyyi lu xaram ah kay loolu la yàlla bëgg ci loolu mooy philosophie koor mooy nii ngeen forcé seen bakkan yi ba mu bàyyi lépp lu dagan lépp lu neex te dagan na ci yéen mais ngeen forcé ko ba mu bàyyi ko ngal la waay bu koor gi jeexee noonu forcé leen bakkan bi ba mu bàyyi lu aram muñ ñetti mbir mooy muñ muñ topp yàlla muñ mooy yàlla muñ jafe-jafe yeeg nattu yeeg jàngoro yi li mooy muñ da ngay muñ jaamu yàlla parce que jaamu yàlla dafa métti wala ñu ngi nii woor koo fi gis kañ la gëj a lekk ca fajar pourtant firgoom biir néegam mbedd mi lépp a ngi mun na dem lekk mun na naan boo beenee gis sa firgo gis naan yi waaye xoolal da ngay jaamu yàlla muñ jaamu yàlla da ngay muñ xoolal julli yeewu fajar ci waxtu sedd nga sangu génn ci lëndëm gi jaamu yàlla da nga koy muñ soo muñul doo ko def bu dee ci jigéen ñi muñ looy muñ def bopp neen da nga koy muñ parce que seytaane ñëw naan la cëm gerefaas bi génn léegi cey mes bi cey loolu cey xàppati bi waaye muñ soo muñul loolu doo ko def da ngay muñ yu xaraam yi ci col geeg lépp pour nga jaamu yàlla lan moo tax dama bëgg jaamu sama boroom xoolal ni mu tàngee nga jël sa kaala daal di muuru sol col gu jot lu tax parce que da ngay jaamu yàlla moo tax da ngay muñ jaamu yàlla soo muñul doo ko def ñaareelu muñ mooy mooy yàlla mooy yàlla dafa neex fanaanoo xale bu jigéen boo takkul doo ko jox dépasse joxe woo can joxe woo dara kenn mayu la ko lu la neex nga def ci moom waxuma la benn waaye ay ay bu dee xale bu jigéen mu dem jaay boppam joxe boppam def lu ko neex naan sàngara def lu xaraam fanaan fu la neex def lu la neex wax lu la neex loolu dafa neex di waaye soo muñul doo ko def doo ko bàyyi ndeysaan yonent bi day nettali ëllëg yowmal xiyaam juróom ñaar ñi yàlla di keral ñoom ñaari nit mu ne am na ci xale bu góor boo xam ne dafa tëdd ba guddi jigéen fëgg fenêtre am koŋ-koŋ mu ubbi muy xale bu jigéen ki gën a taaru ci koñ bi ki fi gën a rafet ki fi gën a xees ki fi gën a njool ki fi gën a lépp loo boole ci koñ bi moom moo ko fi gën a rafetle ne ko dama bëgg a fanaan ak yow mu daal di delloo fenêtre bi ne ko inni axaafu llah bu doon tey lu ñu lay wax yow dootoo tekki yàqu nga dootoo dund boo yow koo nga loolu lañ lay wax wala Yusuf histoire yonent yàlla Yusuf lu ndaw yi jara jàng la tey lan la Yusuf am jabaru buur moo ko bëgg moo ko nopp jabaru buur xale bu jigéen bi ci koñ bi rek ndam la mu nopp la waxuma laak nag jabaru président bëgg la tey ku jabaru président nopp lan ngay xalaat lu muy am loo ko bëgg mu defal la loo bëgg ci alal mu jox la soo bëggee dëkkuwaay mu jox la soo bëggee waruwaay mu jox la lu tax parce que jabaru buur moo la bëgg loolu la Yusuf amoon jabaru buur topp ko ba ci biir néegu buur bëgg a séy ak moom ba pañe ko xëcc ko ba yëreem xottee ko pour lan mu séy ak moom lan la Yusuf wax yow yàlla soo ma protégé wul musaloo ma ba ma séy ak ndaw si dinaa nekk jaahil gis ngeen Yusuf ba mu dawee ndaw si lan la ko yàlla fay mooy yàlla jox ko seesu buur bi mu nekk buur yàlla takkaloowaat ko jabaru buur bi ndaw si nekkaat jabaram ci mu dagan ñaar yëpp dagan ci moom gis nga kuy def lu bon dafa yàkkamti rek xale bu jigéen bii nga ëmbal ndax yàkkamti soo muñoon ay quelque fan rek ñu may la ko waaye da ngaa yàkkamti agresseur bi nga nekk taxaw di aji sàcc pour am alal da ngaa yàkkamti boo muñoon léegi yàlla indi alal ji mais da nga yàkkamti lu bon lii ngay def pour am dara da ngaa yàkkamti wallahi boo muñoon yàlla indi ko mais yàlla da lay testé nag alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun yàlla da lay natt mu xool ndax di nga muñ wala muñoo soo muñee mu indi ko soo yàkkamtee mu bàyyi la kon weeru koor dafa ñëw pour jàngal ñu muñ ci ñetti façon yépp muñ jaamu yàlla muñ mooy yàlla ñetteel bi mooy muñ jàngoro yeeg nattu yeeg feebar yeeg jafe-jafe yi foog nga muñ wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf wal juu wa naqsin min al amwali wal anfusi wasamarat waaye wa bassiri sabirin yàlla nee na dinaa leen natt ngeen tiit dinaa leen nattu ngeen xiif dinaa leen nattu alal ji wàññeeku dinaa leen nattu bakkan yi gaaw a dee dinaa leen nattu mbay mi dootul baax waaye loolu yëpp bu amee yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam na nga bégal ñi muñ na nga bégal ñi muñ mbokk jullit yi julli kenn du ko fowee kenn du fowee julli ku dul ku jëm safara comme tey niñ koy defee julli sunu borom subhanahu wa taala nee na ci alquran ñi ko dul def safara lañ jëm fa xalafa min baadihim xalfun adau lsolaa wattabau sahwat am na ci nit ñi ñoo xam ne ba nit ñu baax ñi demee ña remplacé dañoo bàyyi julli su ngeen demee Tiwaawoon li fi gën a rëy nit di sori di ko séen lan la ah juma pour lan la su ngeen demee Touba li fa gën a sori nit gën faa rëy nit sori di ko gis lan la lan la juma soo demee Medina noonu boo demee Makka noonu boo demee ka léegi nag ña ko fi defoon pour lan moo taxoon ñu def ko julli lu tax léegi du fees lu tax du fees te stade di fees amitié amitié ah amitié ak jumaay Touba lu ëpp ak jumaay Tiwaawan lu ëpp amitié ak seen jumaa ji lu ëpp seen jàkk ji ak amitié lu ëpp ak stade Demba Diop lu ëpp yépp ay fees waaye fii du fees fee fajar day fees fajar fii du fees fajar fee day fees tisbaar fii du fees fee day fees takkusaan fii du fees lu tax te xam nga lu garaaw mooy tey boo ne woon benn waay foo jëm mu ne stade nga ne ko yàlla nanga fa dee suba bu xëyee du la nuyu wala bëggu faa dee de te xoolal mu ngi fay dem koo ne woon boo demee ci jàkka ji boo sujootee rek yàlla na nga dee mu ne amin waay ay jërëjëf waay te du fa dem te du fa dem du fa dem nit ñi fa ñu bëgg a dee duñ fa dem fa ñu bëggut a dee fa la ñuy dem julli kenn du ko foowe ñu ñëw ci ahkaamu hukmu taariku salaa lan mooy atte ku bàyyi julli lan mooy atte ku bàyyi julli ndax julli ni mu garaawee mbokk yi ku ko bàyyi perte nga yërmande yàlla yow yàlla génne na la ci yërmandeem sunu borom subhanahu wa taala moo nuy nettali ëllëg yowmal qiyam benn benn image la ñu yàlla won benn image ci benn film ci film yowmal qiyam yi lañ yàlla tegal image pour ñu seetaan ko pour ñu déglu ko ci alquranul karim waa aljanna di laaj waa safara waa aljanna naan waa safara yéen waa safara maa salakakum fi saqar lan ngeen doon xoole ba dugg safara lan la waa safara tontu qaalu lam naku min al musallin ñun dañoo bañoon julli loolu la waa safara tontu wala loolu du alquran ndeysaan maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min al musallin ñun dañoo bañoon julli kon ku dul julli boo dee da nga dem safara loolu mbokk yi nañ góorgóorlu mu nekk ci suñu bopp borom kër ci këram su fekkee moom day julli jabar ji du julli sëy boobu dañ ko war a tas ndax dafa xaraam jullit di sëy ak ku dul julli moo tax ci suratul baqara yàlla naan wala tankihul mushrikat hatta yu'min na bu leen takk jigéen juy bokkaale ndare mu gëm yàlla mu ne wala amatun muminatun xayrun min mushrika walaw ajabatkum jaam bu jigéen bu gëm yàlla bu dul bokkaale lu mu ñaaw ñaaw lu mu dee dee yàlla nee na moo gën ku rafet ku taaru ku am alal ku ku kuy bokkaale walaw ajabatkum la yàlla wax kon su fekkee ku jigéen ki moo dul julli dañu war a tas sëy bi ndax jullit du takk yéeféer bu fekkee ku góor ki moo dul julli dañoo war a tas sëy bi ñoom ñaar ñëpp su fekkee doom yi ñoo dul julli baay gi ak yaay gi araam na ñu dëkk ak xale yooyu ci biir kër gi dafa araam gis ngeen beneen mooy borom kër gu dul julli su rendee araam na ñu lekk loolu mu rendi nga dëkk ak chrétien wala juif yahud wala nasaraan su rendee dagan na nga lekk jullit bi dul julli su rendee araam na nga lekk araam na nga lekk kon bu toggee nag araam na nga lekk kon bu la joxee dépasse nag araam na nga dundee ko ku dul julli su deewee kenn du ko jullee kenn du ko sang kenn du ko sang jullit yi duñ ko jullee kenn du ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm nga dëkk ak yahut gis ngeen kenn du ko suul ci armeelu jullit yi léegi nag tey ñu xool masala boobu ak ak ñun ñu xool masala bi ak ñun ci ñu ne xasar ci biir kër yi te duñ julli ci ay góor yu ne léegi ay ponkal xale yu jigéen ak xale yu góor kenn du ci yeewu ba teg jëwam bi samp ko ci suuf bal sax léeg-léeg nga dégg ku ne ñun julli dañ ñu koo teggil ñun dañ ñoo teggil julli dañ ñu koo teggil ku la ko teggil kan la kan yàlla moo leen bul julli sahaaba bi doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi am ku mu doon àndal mu bëgg ko lool su yonent bi simmee daal yi mu mu téye daal yi bu yonent bi tegee yat bi mu jël yat bi bu yonent bi tegee kaala gi mu jël benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla mu defal la waxal loo bëgg rek waxal loo bëgg allahu akbar mbokk yi tey ñun suñ ñu waxoon loolu bu la président de la république waxoon waxal loo bëgg defal la ko waxal loo bëgg ndeysaan ñu lay ne ñun ak ñee duñ benn ñun ak ñee duñ benn xam nga waa ji lu mu wax mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna man de leen rek mooy sama problème mu ne lan la mu ne nii ma àndeeg yow ci àdduna yàlla dimbali ma noonu ba ma ànd ak yow biir aljanna yonent bi ne ko loolu de mënuma ko mënuma laa dugal aljanna ñaanal leneen mu ne man nag loolu rek laa bëgg aljanna xam nga lu ko yonent bi wax a inni bi nafsika ala kasrati sujud kon nag del julli lu bari del julli lu bari kon ndeke loolu mooy julli mooy loo xam ne sa ngërëmal boroom sa kontaante boroom moom nga ci am moo tax mu ne qaala baadu salaf inni adxalu fi lsolaa fa ahmilu hamma xuruji minha mu ne man de wax dëgg yàlla saa yu julli jotee damay am naqar su julli jotee ñu ne mu ne damay am naqar ñu ne waaw loolu doy na waar di sëriñ bi mu ne waaw ñu ne lu tax mu ne ndax damay xam ne léegi ma génn ci loolu mooy sama problème léegi léegi ñu sëlmal ma génn ci loolu moo tax ma am naqar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu sonnoon lan lay wax bilaal yaa bilaal arihna bis salaa noppal ñu ci julli ñun bu ñu sonnee nan la ñuy def dañ naan soxna si ba- baleel fii mu bale nga ne ko lalal basang bi teg ci matla bi indi darab bi indi njaganaay bi indi ventilateur bi ana siwo njar bi ana baraada bi nga jaaxaan yonent bi moom bu sonnoon danaan bilaal noppal ñu ci julli ndeysaan moom bu sonnoon day julli ñun bu ñu sonnee noppalu kon du benn moo tax ma ne ñun ak ñe duñ benn Abdullah ibnu Mas'ud dafa feebar amirul mu'minin ñëw seet si ko fi mu tëdd ne ko luy sa problème tey mu ne samay bàkkaar looy jàmbat mu ne samay bàkkaar luy sa problème mu ne yërmande yàlla laa bëgg Allahu akbar looy jàmbat samay bàkkaar ana kan ci ñun mooy jàmbat bàkkaaram fii te ñee Abdullah ibnu Mas'ud lan la wax juróom ñaar fukki saar ci alquran ku ma ñeme na ñëw du ma ko xëccoog kenn yépp ci làmm ñu yonent bi laa ko jàngee yonent bi moo ko wax ma dégg ku ñeme ñëwal yonent bi fekk na ko guddi muy naafila di jàng alquran yëgu ko mu ngi ci biir jàkka ji yonent baa ngi ci biti muy jàng-jàng ba yonent bi ne ki mu àndaloon ku bëgg a jàng alquran mu tooy xepp ni ko yàlla wàccee jànge ko ni ko ngóor si di jànge waa jooju moo feebar ñu ne ko looy jàmbat mu ne samay bàkkaar moo tax ma ne ñun duñu ñoom ñoom duñu ñun ñoom nii lañ doon taxawee ci seen i julli ñoom nii lañ doon jullee ñoom nii lañ doon taxawee ci seen jaamu yàlla nii lañ doon taxawee ci seen koor amaa ñun di nga gis sax ci weer wi nu nekk woor ba ngoon te du julli ku woor ba ngoon laa wax te du julli ku woor ba ngoon du teg jërëm ci suuf ana koor googu ah xiifal sa bopp kon jaamu yàlla la bu rëy mbokk yi bu doomu aadama warul fowe su ko xamee waaye kañ su ko xamee lan moo tax léegi ñun ñu koy fawe parce que xamuñu xamuñu moo tax mbir mi safatul dara ci ñun amatul lum ñuy jëriñ amatul lum ñuy wommat amatul fum ñuy yóbbu te julli mooy jaamu yàlla boo xam ne fu mu fekk nit war koo toxal yóbbu ko ci yàlla ci pays yu sell ya soo bëggee yàlla wax ak yow jàngal Qur'an soo bëggee wax ak yàlla jullil ñaar yooyu rek moo fi nekk nga wax ak yàlla wala mu wax ak yow ku bëgg ci ñun soo xëyee suba nga bëgg yàlla wax ak yow ubbil alquran boo jàngee alquran rek yàlla wax ak yow soo bëggee yow wax ak yàlla jàppal ba set kàbbaral bul ko bàyyi ba ci sujjóot moo tax yonent bi nee na nit bu sujjóotee jege na yàlla laajal ñu jox la laajal rek ñu jox la kon loolu mooy julli mbokk yi kenn ci salaf yi mu ne inni la afrahu billeyl hina yaqbilu lima yatayazazu ata lazazu bihi mu ne bu guddi jotee damay bég ñu ne ko lu tax mu ne ndax dama ci bànneexu bu ñëpp tëddee ku nekk wéet ak ki nga bëgg mu ne ma wéet ak ki ma bëgg ñu ne ko kan la mu ne sama borom ndeysaan bu ñëpp guddi jotee ñëpp fatu ku nekk wéet ak ki nga bëgg delloo sa bunt delloo sa fenêtre fay say lamp mu ne ma wéet ak sam ki ma bëgg ñu ne ko ko kan la mu ne sama borom Allahu akbar moo tax yàlla wax ci Qur'an kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un ya ayyuha al-muzammil qumil layla illa qalila wallahi ñoom duñu ñun duñu ñoom waaw kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un ñoom néew na luñ daan nelaw guddi néew na allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama dañ daan fanaana sujjoot ba bët set mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala sunu boroom moo santaane julli mu nekk farata mu ne ci alquran wa aqimi salata li zikra ku bëgg fàttaliku yàlla rek jullil waaw julli mooy jaamu yàlla gi nga xam ne moom la la yàlla indil pour nga koy fàttaliku diggante suba ak tisbaar diir bi nga fi def seytaane xaw laa fëkk tisbaar jot acca li zikra nga fàttaliku sa borom diggante tisbaar ak tàkkusaan diir bi tàkkusaan jot li zikra noonu la waxtu yëpp mu nekk lu lay jokkale pour doo rëcc pour buum gi du dagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na innama furidat as-salaa wa umira bil hajj wa ash'arat al manasik li iqamati zikra yonent bi ne dañu santaane julli def ko farata santaane aj def ko farata mbooleen shiaar yi koor ak yeneen ak yeneen yëpp lan lay jural jaam mu ne zikra pour fàttaliku yàlla rek kon jaam bi warul fàtte yàlla ndax waxtu wu nekk yàlla boole na la ak loo xam ne waroo koo fàtte dañu laaj benn boroom xam-xam ci aaya bi yàlla naan fazkuruni azkurukum fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen moom mu ne zikrullah yazdaadu zunub fàttaliku yàlla day la da lay dolli ay bakkaar ñu ne ko li nga wax garaaw na de mu ne waaw waaw kuy toog di fàttaliku yàlla rek ku bëri bakkaar la ñu ne ko lu tax mu ne da nga koo warul fàtte yàlla kenn waru koo fàtte dafa am benn borom kër dafa amoon ay gëléem ak ay nag ak ay xarak lépp su guddee dañuy rat ñaari karaaf ba mu fees benn bi doom yi jël ko reere ko moom ñu tegal ko bosam bu yeewoo guddi gi mu jël bosam reer benn bis xale yi daal di rat seen karaaf ba mu fees daal di fàtte bosam mu yeewu xaaju guddi làmm karaafam gisul dara mu ne waaw lu xew fajar jot mu ne xale yi waaw démb de man reeruma ñu ne ko papa dañ laa fàtte ne da ngeen maa fàtte ñu ne waaw mu bàyyi ba naaj bi tàng mu dem marché ba mu ne waa marché bi ñëw leen damay saraxe waa marché bi ñëw mu ne ku nekk rek loo jël rek yaa ko moom ñu saax-saaxee gëleen yi saax-saaxee nag yi yóbbu béy yi bàyyiwuñ dara doomi ne ko waa papa lii nag mu ne damay bañ ma dee ngeen fàtte ma dama bëgg a liggéeyee léegi sama bopp balaa ngeen may fàtte bu ma faatoo comme maa ngi dund ngeen fàtte ma su ma deewee ngeen fàtte ma waaw loolu moo am nii nag loolu mooy li ñu dal nii da ngay nekk ak sa papa wala sa yaay wala wala wala nga fàtte ko kon bu deewee nag moo tax Sénégal ku dee ñu fàtte bu gis nga buñ la yóbbee gars yi gas ba mu xool dugal rek fàtte nañ la buñ ñëwaatee ci baas bi nga gis ku naan mais yow sa kër gi kañ nga koy yeggali kee ngi naan waaw ñaata jàpp ñaata soxna la bàyyi ñee ngi naan lan la ku nekk ngi wax fàtte nañ la jigéen ñaa ngi commencé jaagar jaagar yi rendi nañ nag yi teg nañ ba nay quatorze cin nga gis benn waaye day jóge fële waaw di compter cin yi un deux trois quatre ba egg ci quatorze di compter baas yi nga xool tante bi affaire bi du la nuru dëj doo xam lii lu muy nuru balaa ngay xam ne lii dëj la nga ne sawaay salaamaaleykum ñoo ngeen lu xew fii ñu ne dafa am ko fi wàññeeku loolu moo lay wan ne dañ laa fàtte bii la gaa yi yóbbee ñëwaat lan lay fàtte biñ la yóbbee rek ñëwaat lan moo lay wan loolu mooy lan lañu rey ñaari nag yàpp kan moo koy lekk kuy lekk yàpp kuy feetu bu fekkoon ne dañu dañuy saraxe wala dañuy naqarlu duñu rey nag ah billahi kan mooy lekk yàpp kuy feetu yàpp yàpp tey bu la nee benn waay noonu kaañ dem nga ndogu ci xel xelam lan lan lan lay koy jox sama waa ji sama gan gi naa ko lan boo ñëw mu tegal la sombi suba bu ñu nee kaañ ndogu ci da nga naan non dafa am ku ma tey tey dafa am ku may kii doo dem wallahi boo demee mu tegal la yàpp suba bu la ne sa waay nga naa waaw macha allah nañ dem kon gars yi bañ la yóbbee lañ la fàtte bañ la yóbbee bañ yóbbee ba gas ba mu xóot yaa ngi ni tëdd gas nañ ba mu xóot ñu ne ana ñan ñoo koy dugal nga gis gars yi xoolal kenn du tëb ci benn nga gis ñu naan nii kii nga dégg mu ne ba baax na baax na dañ nga dégg ya kenn saa sax dañu waaw yow yow yow ñëwal mu dugg lu muy dugal benn tànk ak beneen bi ci kaw wàcce benn bi ndeysaan ñi dugg ñett ñëpp benn tànk la ñuy wàcc ak beneen ci kaw kenn si ñoom bëggul ñaar tànk yi ci biir ndeysaan allahu akbar ah dee lañ bëggut ndeysaan ñu ne jegal si leen kees gi nga gis gaa yi indi déeg génne leen ko ñu génne gaa yi di xool ñu dugal boroom xam-xam bi nee na foofu ñu la dugal sa kanam gi lañ jublool penku loolu moo tax yàlla tàmm loo tànn loola julli pour kanam gi tàmm penku bi pour bis boobu bu ñu la fa dugalee kanam gi tàmm penku bi ndax fii dootul mooy penku bi ba yowmal qiyaamati kon kanam yi na tàmm penku bi kanam gi na tàmmu xibla bi na kanam yi taamu xibla bi ci xibla bi lañ lay sus fan fan mooy xibla bi ñu ne fii ñu jël kanam waa ji na ko fa taf bu fekkee daawuloon julli nag buñ tegee kanam gi ci xibla bi tamit du dem nga dégg bu dee gaa yu baaxee la ñu ne bismillah ala millati rasulillah ñu daal di wàcc suuf si allahu akbar waajaa ngay wax de ma nga naan yaa ahli yaa abnaa'i yaa man axastum amwaalana wa labistum siyaabana wa sakantum diyaarana laa talabanna bikum addunya kama laibat bina ee yéen samay doom ee yéen samay mbokk ee yéen samay xarit ee yéen samay am di jàmm ngallawaay yéen ñi nar a dëkkewaat sama kër nar a doon naar sama jabar ne la solaat sama yére tëddaar sama lal bu leen àdduna fawee bu leen àdduna jay comme man nii ma àdduna fawee tey maa ngi nii dem barakallah allah barik fik ixwaani xolof yi nee nañ nit ñi dañuy nelaw rek buñ deewee yeewu baatu dëgg la dañuy nelaw rek buñ deewee yeewu am na lu rëy lu ñuy xaar wallahi dañuy nelaw bu ñu dee yeewu ku dee rek yeewu ku dee bañ génne la sa kër dugal la ci morgue bi ñëw futti la ba nga set sàng la saañ pax yi bakkan yi ñu fatt ko fatt nopp yi fatt turu yëpp ci yow sàng yeew ba mu dëgër teg ci jaag gi luñ lay def lu ci des julli est-ce que daana julli gis nga de julli dañuy njëkk a def julli julli acca dafa leen sàppa yi ñu jullee ko kii ñuy jullee est-ce que daana julli loolu lu jara laaj la loolu lu jara fàttali la nekkoon nañu benn góor ca sunu cité ba su noddoon ba pare danaan waajal leen waxtu yu bala ñu leen a waajal waaj leen bala ñu leen a waajal julli leen bala ñu leen jullee ba pare mu yor micro bi naan lu baax du doy góor googu ñett yooyu lay wax ba xëy dee saa yu noddee ba pare waaj leen bala ñu leen a waajal ah wax na dëgg nit day waajal waxtu wi bala ñu koy waajal kañ lañ lay waajal mooy ñëpp ñëw nañ toog yaa ngi ci morgue bi ñi ngi lay sang ñi ngi lay waajal waaja yóbbu dañ lay waajal kon saa yoo déggee waxtu yu jot waajalal waxtu wi bala ñu lay waajal ñëwal nga julli balaa bis buñ lay teg ci kanamu imaam imaam di laaj léegi sax imaam yi duñ laaj ndax waa ji daan na julli bu fekkee nee nañ waaw mu ne ku ko mës a gis mu julli ku ko mës a gis mu julli ah bu fekkee waa ji ci jëkk ci jàkk ji la dëkkoon ah 24 heures sur 24 suba ngoon mu ngi ci jàkk ji kooku yaakaar naa seede ko dina yomb de waaye kii ndax mus ngeen koo gis mu julli waa waa rang premier naan ni deuxième waa deuxième naan ni troisième waa troisième di xool quatrième waa quatrième di xool cinquième ba jàkk ji jeex ñu naan xanaa ñu yónnee kër ga ba xam laaj ana soxnaam ana borom këram ndeysaan kii seen waa ji moom yenn saa nga de kenn ku ñeme yàlla daan na waaw waaw ana julli kay mën nga ko gis waaw mën naa ko gis kay ndeysaan am na benn waay bu ko defoon nekk ci jàkk ji ci daawul julli dee mu ñëw ne moom mus na ko gis mu julli daf ko seede pare ñuy aj néew bi ci oto bi di ko yóbbu muy traversé tali bi oto fël ko mu dee ci oto yooyu doon yóbbu néew bi benn moo ko fël mu dee parce que da doon fen yàlla weer ko mbokk yi julli sunu borom subhanahu wa taala daf ko indi pour ñu dundal suuf si wal muraadu bi imaratiha bi sala wal qurbat yàlla daf ko indi muy mbir moo xam ne daf ñuy jegeel digganteem ak yàlla pour ñu dundal addina bi loolu tax yonent bi ne iza raaytumu rajul ya'taadu l masjid fashhadu lahu bil iman su ngeen gisee nit muy baamtu jàkka yi di dem di ñëwaat seedeel leen ko ngëm mbokk yi fii la ñuy tënk waxtaan wi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp yal na yàlla def ñu ay taxawalkat julli yal na yàlla nangul ñu suñu koor yal na yàlla fekkee leenu négeenu déwén lépp luy bàkkaar ci ñun yal nañ ko yàlla dindil lépp luy ay jàngoro ak ay feebar yal nañ ko yàlla dindil dama am léegi beneen conférence bu may def trois heures loolu moo tax incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah
voilà donc waaleykum salaam defe naa ne li ñu sant yàlla bu baax ci li nga xam ne oustaz wax na ko ci man damay wax ne suy jàngalekat moo doon wax pédagogue tellement exemple ni mu indi nga xam ne suñu raayati la soo xoolee ay ay alxuraan bi indi sax daanaka am na ci mais bariwul tellement dafa xam suñu jàngoro image bu mu joxe bu mu gën a marqué mooy bi nga xam ne président yi ñu ngi koy am nga xam ne suñuy wàcc wala ñuy dem wala def revue des troupes nga xam ne ñi nga xam ne ñooy soldats yi nu ñuy nekkee en rang serré day jub tout est millimétré loolu ñun moom moo ñu jafe ci suñu jàkka yi te dëngal sàppe musiba la inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus yàlla bëgg na ñi nga xam ne du ñuy góorgóorlu si yoonam nekk mur mur boo xam ne dafa dëgër jub si ngeen kon loolu wax dëgg yàlla ku mel ni Omar su nekkee ne suñ ko reyee si defar sàppe la woon te ñun suñu sàppe yi def ay arc te des fois doo ñu la xëcc nit ko loolu problème la ñaari aussi mooy wax na benn image bu rafet bu neex boo xam ne bu dëggu la bari na lu mu koy bamp mu ne julli buum la kon buum yow soo tegee si benn buum bi beneen cat bi am na ku war a tëy nga xam ne yow fa nga jëm maanaam ñun suñu tegee ci buum bi beneen buum mooy ci yàlla subhanahu wa taala kon loolu comme ndegam yàlla may nañu ñu nekk ay jullit ba pare yàlla jox ñu buum boobu kon ñu ni ci war a tëyi bu baax gën ko xam gën ko def commencé boobu muy commencé wax na ko nee na c'est pas par hasard yàlla li nga xam ne mooy alxuraan bi muy wàcc yëpp jibril alayhi salaam moo ko indi mais jullit dafa wax yéen dafa wax jibril na woo yéen bi sax bu mu koy jox yéen bi sax fekkewul kon loolu daf day wan màggaay bi nga xam ne julli am na ko bi ne aussi mooy wan al xushuur maanaam am teew